on a ci année bii nii après lu mel ni cinquante projets euh, projet nag ci domaine yu bëri la nekk ci domaine santé ci domaine agriculture euh, ci domaine environ environnement ci domaine pétrole ak gaz ci domaine euh, aérospatial lépp loo xamante ne science ak technologie technologie boo xamante ne am na njëriñ ci développement dëkk wala dinañ ko soxla donc ce de des technologies yoo xamante ne étudiants yi développé nañ si donc soo xoolee di nga gis ay étudiants yi développé ay ay tracteurs fii local am ñu développé ay drone sous-marin yoo xam te ne dina dugg ci biir ndox mi am ñu développé ay drone aérien am ñu développé ay ay ay ay système de réalité virtuelle euh, am yeneen système comme euh, lampadaire yi ñu am ci tali ci ci mbedd yi yoo xam te ne dinañ la mën a contrôler à distance ñoo xam dawuñu am na ay nit ñu defar ay ay machines yoo xam ne dina permettre artisans yi di mën a def seen liggéey di dagg am ay étudiants yi defar ay machines yoo xam te ne permettre nga tabax sa kër sans pour am ay briques mais machine bi taw moo koy tabax genre genre genre projet yu mel noonu ci domaine yu nekk daal.